comme le cas de tey Sidi Diop. Mhm. man su ma ko doon conseil man. Mhm. ma nekk staffam. Mhm. Sidi bi mu waree diggante mag. du tey xam nga kañ la. Sidi dafa mëkkante ak Waly Vogue dafa wala mu ñëw Vogue ñu wayante Waly seddal ko lu baax ne ko sama rax nga. sama soppe nga. Sidi ne ko Waly man tamit dama la bëgg. sama àdduna lenn laa doon ñaan yàlla bi mel ni yow. xam nga ne maanaam dañ mag ñi. ñoo la jàngal waaye man ci yow laay jàngee ñu waxante lu baax waal na ko bul bul fi géej waaye bien avant loolu danoo way ñu waxtaan waal na ko Sidi borom pentola ne ko borom géej waaye pourquoi pas Ndakaaru boobu Sidi mi ngi pentola mm-hmm. mm-hmm. di dox ba Sidi tëgg gis ma waay yaa ma ne woon Sidi borom pentola Sidi géej waaye pourquoi xanaa léegi dama lay déranger boo ma jiitoo xaar loolu Sidi da ko doon génne boobu dafa ñoroon tàbbi pour man concurrence bi lool la man su ma ko doon conseil boobu mhm. yooyu laa lay wax. dëgg la. Mhm. Mhm. dafa ñoroon. dëgg la Sénégal loolu la rek. tey coowal Youssou Ndour ak Waly bi Youssou Ndour ba léegi waxul Waly waxul. waaw dëgg la mais Youssou Ndour danee guy Dakar. Waly ne guy Dakar. Youssou Ndour danee guy Dakar. Waly seen guy Dakar ñu ñoom ñu daje si Dakar ba. coow li am. maanaam tey su may conseil artiste ñoonu lay def wala may na la parce que tamit maanaam c'est malheureux tey artiste tey Sénégal tey duñu ji duñu jugé euh, duñu nekk di jugé artiste ci talent wala mën mayam mhm. artiste léegi politique la gouvernement la wax naa ko ñëpp da ngay am base ñu respecté la mhm. tey da ref def guichet fermé producteur bi mooy ñëw si parce que danaan kii mooy def guichet fermé nga dëgg grand théâtre duñu ne ndax spectacle am baax na ndax fees na la ñuy wax kon léegi loo mën a way wayal yëkk asamaan wàcc boo amul people da ngay xaar am sori mhm. loolu mooy li am ma ñëwaat ci man fi ma ñëw man dama ne la artiste mhm. man wax naa ko man lii ma pour nekk li ay ay ay flow man leader laa mhm. da may soxla ma ñëw du ma si booru nit duma ma dungu nit waaye dama ko naw il fait partie de mes mhm. yow noo tengo miedo ma wax loolu xam nga tax waaye dafa gëm boppam dama ko seetaan émission wake up fata bu yàgg période bi ñuy werante waaye li mën na mënul mu ne man biir na ma ne musique sénégalaise bi sama loxo lay mujj ne barke maam Cheikh Fall ma ne kii am na vision mhm. waaye vision rek doyul da ngay am ambition mhm. waali ma toog seetaan mu ne rus naa di ñëw sama soirée mhm. sama musicien di wàcc ay taxi ma ne kii il est généreux waxu ko rek yam ci da ko jëf aussi amee maanaam waali day fekk ku ñëpp ku ñëpp xeeb ñaaxare loolu exemple la si dëgg la ku ñëpp ñaa da teral ci loolu ñaa may ko mu ñëw may ko mu ñëw dina du ma géwalu mi leer ñaa demal teral ci Wally des ñaa demal teral wóos dañ naan kii gëmul li nga wax dëgg la wóor waaw loo ma tere ma may ko sama yaay. ba bi laa dëgg la wóor. tàccu leen lii waay eh, eh, tàccu leen lii waay. Eh, ñaaw. wóor. wóor. yaay lii yaa ko moom. wóor. wóor. wóor. macha allah. waaw wóor. wóor. wóor. non mais. boo noppul ci wàllu parce que ne kii dañu doon ànd yoruñu dërëm. dërëm yoruñu ko. dañ daan xëy apparemment am sagaru oto Mégane ci lañ daan defee suñu caravane boobu. waale ne ko ñaa naa a mun ko dinaa la defar mu ñëw di ma ko wax. ah man de loolu ko. mais bi ngay bi tukki di ma woo WhatsApp naan ma maa France. ci laa ko commencé gëm. ba tey ji ngay tabax sa kër yaay ba yóbbu sa yaay makka ngay ànd ak président ba tey ji su ma duggoon ñu téema nga ne ma xaaral maa ngi ñëw jël si la kon nag si boppam woykat loolu lay jëriñ ñi muy àndal da lay jëlee ci kénkili ba yóbbu ci jus d'orange man loolu laa gëm la te te defal ndànk defal ndànk defal ndànk defal ndànk rek defal ndànk ah. man mii tey jii nii am na ñu may jàppale mais dañu ay woykat mhm. ci mel ni Aziz Ndiaye Zador mhm. <laughs> nee na ma produit bi bu ma ko dugalee seen télé yow yaa gën a tax mhm. te man maa njëkk a tax mu dugal fi produit bi mais àdduna nit da ngay mën sa nit waaw nit da ngay mën a na lu ma bëgg dafa am bu mu wax quoi mhm. nee na euh, moom su doon conseil si di mhm. da koy wax ne ko bu muy bu muy suy concurrence bu yàgg la koy def mais man dama lay wax encore une fois si di Diop nekk fi di concurrence ak kenn Sidi Diop dafa nekk benn xale boo xam ne. wax ak tontu la. déedéet dama ne wax la damay déglu ma daaneel damay déglu ma daaneel. voilà Sidi Diop dafa nekk benn boy boo xam ne ci banlieue bi la dëkk. yaa may dégg amul yaay buy woy amul baay buy woy dafa juddu dëkk ci banlieue bi di ñafe ñafe ñafe ñafe ñafe ba sénégalais yi di ko jël di ko tëkkaleeg ku ne ku ku yi ku ñu wax ne moo fi nekk ñu koy tëkkaleeg kooku. mais Sidy Diop taxaw ne ni day tekkaleeg boppam ak qui que ce soit Sidy daf fee nekk di liggéey. te dama gis nga Sénégal dafa am loo xam ne dañ ko ëmbulee parce que dara jugul dem ci diis Wally Seck ba muy commencé mel woon nii dafa dem di def ndànk ndànk ndànk ndànk yàlla defal ko tey lu mu am. Sidy mu ngi si yoon bi te mu ngi prouvé gars yi xam nañ bu baax mu ngi prouvé parce que tamit fu amul dara kenn du fa dëkk fu amul dara àll la te doo ñëw ba si àll di fa dëkk. Mm-hmm. nit munoo taxaw fi nga taxaw ne da fay sax ba abadan loolu munul nekk kii nii fu mu toog nii un jour viendra dafay jóge keneen dañuy ñëw toog mhm. fii amul kenn kenn kuy mën a toog fi ngay toog ne fii man maa fi toog ba ba ba dee ba ba abadan ba daayamatan amul ku dul yàlla suñu borom mhm. Sidy dafa nekk si yoon di xale am koo xam ne mu ngi nekk suñu ginnaaw di ñu jàppale muy Matar Diop suba teel yor label bu bu bu doy waar booy ngay dégg fii ñuy def bruit yëpp ñu ngi ci label boobu képp ko booy ngay gis ñuy def bruit la alors de muy Bass Thioung waaw da nga may déglu muy Bass Thioung mhm. muy Ibra muy Sidi Diop ñu ngi ci labelam ba pare Sénégal dañuy jóg di xalab di xalab di jël benn affaire di ko téye di protéger loolu di xalab bu leen xalab Sidi Diop amul benn mbindeef buy dox Sénégal amul kenn ku ko mën a tere yegg fu mu jëm te yàlla yàlla waxul yàlla téewu ko. dëgg la doom yaay doom yaay. doom yaay doom yaay bëgguñu bëgguñu relancer waat débat boobu may leen nañ dégloonte tuuti. ñu dem si leneen quoi nañ dégloonte tuuti wuyu ma bëgguñu relancer waat débat boobu noonu du coup. Ismaila déglu waaw Ismaila Ismaila déglu ngir yàlla si tamit dañuy waxtaan Abdou. may ko mu daaneel may ko mu daaneel day concurrence ak nit sérieux concurrence. non non sponsor nañ ko gis nga doom yaay. doom yaay doom yaay. doom yaay Ismaïla doom yaay waa waa dëgg la doom yaay doom yaay gis nga xoolal gis nga Sidi tey.